salaamaaleykum mbokk internet yi seetaan vingt 24 ñu dikk ak yéen ci situation bi nga xam ni moo am fii ci réew mi ci wàllu Covid 19 tey nag Sénégal dugg na ci zone rouge zone très rouge sax lay wax ndaxte tey réew mi am na junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas positif loolu nga xam ni kenn mësu ko xalaat mësula am. kon nag Sénégal egg na foofu léegi nag mbir mi kéemaane na ci ti junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas positif yooyu am na ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn cas contact am ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ka issus de la transmission communautaire muy wàllu wàllante bi ci loolu département de Dakar am na ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett département de Rufisque am na ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett département de Kër Massar am na ci juróom-benn fukk ak ñett département de Pikine am na ci juróom fukk ak juróom-ñaar département de Guédiawaye am na ci ñaar fukk ci yeneen région yëpp ci Sénégal ñoom daje seenu seen mboole boo ko defee am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent yooyu noonu nii la tëddee. Thiès maanaam biir Thiès commune Thiès am na ci ñeent fukk ak benn Popenguine ak Tivaouane ku ne am na ci fukk ak juróom Touba am na ci fukk ak ñaar Daara am na ci fukk mbuur am na ci juróom-ñeent Kaolack ak Linguère ku ne am na ci juróom-ñaar Fatick ak sali ku ne am na ci juróom-benn Pété ak Ziguinchor ku ne am na si ñeent Daaru Musti Jurbel Matam Pout Saint-Louis ak Caajaay ku ne am na ci ñett mbake Ngapparu piir ek Sokone ak Vélingara foofa fu ci ne ñaari kaa jóge na fa Aéré Lao Bignona Bunkiling Guinguinéo Louga Mboro Nianing Patar Saraya ak Somone foofa fu ne benn kaa am na fa su ngeen ko seetloo dafay mel ni jàngoro ji law na ci département yépp fi mu nekk nii ndax néew na département boo xam ni amul gox buñ fa tuddul ci junni ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas yi nga xam ni moom la ñu tey ah tey nag téeméeri malade ak juróom fukk ak ñeent testé nañ leen positif négatif ba yaakaar génn nañ xam naa ni dinañu génn tey ñaar fukki ka ak juróom-ñeent yu grave yu nekk sawetaas am na juróomi nit ñàkk nañ ci seen bakkan ci àjjuma ji kon nag Sénégal mbir maa ngi noonu war nañoo seetaat gën a euh, delloo siwaat xel yi ndax moytu bi ñëpp jàpp ci ndax lii bu continuer nii fa mu jëm dina kéemaane trop démb nag ci àjjuma ji juróomi junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti nit ñekku nañu loolu nag ba léegi néew na ñuy ñaax nit ñi ñu dem ñekku ji te di moytu dendandoo bi di sol masque yi di bàyyi nuyoo bi te ku ci génn sa kër nga raxasu boo delloo sa kër nga raxasu bàyyi joxante loxo bi a ngeen jëf